salaatu llazi fi kulli bisaarin wa fi safar amaani ala maahin maal mabsa wa safar billahi min asheytaani rajim bismillahi arrahmaani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil anbiyaai wal mursalin sayidina wa maulana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwani wa tamkin mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. E, ginnaaw bu sante sunu borom subhaanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam feddliwaat sunu yaakaar cheikhuna Ahmadul Xadim ñaanal Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na ko fi sun borom gën a yàggal te gën a dolli ak wéram waaye di fàttaliku ci ay ñaan jàmbaari lislaam ji fi nekkoon di Serigne Touba Cheikh Salihu Mbacke yàlla na mul yàlla di wàcc ci moom li fekk doomu aadama ngi dox ci kaw suuf. mbokk yi noo ngi am di ñëwaat ak yéen seen émission bi ñu tuddee 18 eh, safar 18 kàngam mbokk yi 18 safar 18 kàngam di émission boo xam ne seen télévision bi di Assalaamy TV lëkkaloo ak seen rajo Assalaamy FM 99 point 0 ñoo koy amal ngir di ci waajal bis bu tedd bi ne ci suñ kanam di bisub sant le sunu borom subhaanahu wa taala xadimul Mustafa sunu sëriñ mbokk yi tey nag ñu ñëw ci ëtt boo xam ne ëtt la boo xam ne kenn la ci kàngam yu bàyyi ko ci biir kàngami sëriñ Tuubaa yi a ëtt ban a ëttëb sëriñ Ahmadou Mbacke Maawul Hayaat e, moom sëriñ Amdi Moustapha ñu gën koo miin ci sëriñ Modou Mbacke moom sëriñ Modou Ajara sëriñ Amdi di doomi sëriñ Modou Ajara sëriñ Modou Ajara doon ci mag ñi toppoon sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul te daan ko féete ci liggéeyub jàng alquran ak di ko jàngale ak di ko bindal mbokk yi ñu bëgg a taatan ay kàddu ci sëriñ bi ginnaaw bu ñu jaajëfalee mbooleem téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi topp ci réseau yi nekk Touba rawatina réseau sëriñ Baara Loom sëriñ Fallou Silla ak ñi mel na ñoom ak ñi topp ci YouTube bi ak ñi nga xam ne ñoo ñuy topp ci rajo bi ci 99 point 0. Eh, sëriñ Mouhamadou ginnaaw bu ñu la joxee kàddu gi nga nuyoo ak bokk jullit yi ñi ngi la fekk fii ci dëkk bi nga xamante ne bii moo di Taybatul Karim. di barab boo xam ne eh, yaa ngi ko jël ngir di ci liggéeyal Serigne Touba Xaadimu Rasul ci jàngale ak yare te loolu mooy li nga xam ne moo ñu tax a jóg tey def fi itam jumaa ju mag yoo xamante ne bii ku génn ci daara ji war a mën a taxaw ci jumaa ji eh, ñu bëgg a ñëw rek ginnaaw boo nuyoo ak bokki jullit yi ak bokki téléspectateurs yi eh, ñu tabbi ci sang bu boobu nga xam ne moo di Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké mission nga xam ne moom la ko sunu boroom tegoon te Serigne Touba Xaadimu Rasuul féetale woon ko ci te mooy defar doomu aadama te sëriñ bi nee na loolu rek ko taxoon a ñëw ci kaw suuf kon ñu bàyyi la nga nuyoo ak bokki taalib. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh Cheikh Mouhamadul Fadal Silla noo ngi lay delloo nuyoo di la delloo siyaare aku cant di la dalal ci barabu tedd bi di ëtt ci ëtti sëriñ bi nuyoo bi ñu ci jiital Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan sunu borom fiq aw fanam te yokk ak wéram te dolli ko tawfiq ak kattan ba yéene yi am ci liggéeyal sëriñ bi yëpp mu jëf ci lu kawe njortam te na ànd ak moom di siyaare bokk yi nga xamante ni yëpp ñu ngi topp seen jumtukaay yi te di ci jariñu yàlla defal leen digg ak topp te ñu ci yëkkati kàddu yëpp na ku mel ni man mi yàlla buñ ci gis sunu bopp di nuyu ak a siyaare Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke nga xam ne way juróom ci lañ bëgg dikk ngir waxtaan ci moom Serigne saale ak njaboot gi yëpp di ñaan sunu borom tëpp leen kàttan ak tawféex ak i jàppandal ba seen yéene yëpp nañ ko yéene bëgge ko yàlla defal leen ci la kawe seen jot ci mbaxam ak yërmandeem ak tawféexam. Serigne Ahmadou Mbacke ñu bëgg a tàbbi ci ëtt bu mag di Serigne Salihu. buñ bëggoon a xam sëriñ Ahmadou yan jamono la tàbbi ci loxoy Serigne Saliou ak sëriñ Saliou même même tàbbi woon ci loxoom mooy kan. Serigne Saliou day bi ñuy tàbbi ci loxoom xëy na booba féete nañ ci tuur tànk ba dem dayo ndax Cheikh Moustapha mi nga xam ne mooy sunu woyjur nekkoon jaamu yàlla bu yéeme di jullit xàqan waaye sëriñ Touba mi nga xam ne moo doonoon naanukaayam it mu jeex ci takk ci sopp ko ak bëgg ko ak liggéeyal ko am ci positif boo xam ne dem na doyo niiwaane kooko cay fekk ne ko way juróom ba ci ku baax ke booba ni ma sama way juru jigéen di nettali muy soxna Aïssatou Silla mel na ni Cheikh Moustapha sëñ Amdi sëñ Saliou dafa ñëw ca kër ga dafa daan ñëw di ko seet si bis mu dikk fa soxna yi ñëw nuyoo sëriñ bi xaal jàpp ko muy sëriñ am di ak coobar gannaaw coobaree sunu borom mu jële ma ci gannaaw soxna si kon booba xam nga ni loolu yéeme na ne ko jébbal naa la ko te du fi des waaw ne ko jébbal naa la ko te du fi des ak tàngooru metti ci gannaawam la ma jëlee ne ko jébbal naa la ko te te du fi des danga koy yóbbaale waaw bi mu mu ko ko joxee nag mu téew ma ñaanal ma ne ko kon nag dama koy dénkaat soxna si moo moo moo moo bàyyiwaat ma fa ñaanal ma yaakaar naa ne bi may jël si ci oto boppam la ma jël si booba ku ñuy wax sëñ Mbàkke moo koy dawalal Cadillac yi leen Juga Kebe joxoon Alaaji Babacar Kebe yàlla na yàlla doole yërmandeem ci moom ba oto boobu moo ma jël si ci kër sëñ am di boobu amaguma juróomi at ndax maa ngi fàttaliku bu baax ne booba tey jii rek am na kilifa gu ma koy waxtaana ma ne ko booba lu ñuy defal gone rek dañ ma koy defal ci bi laddante kon loola yaakaar naa léegi mu defa ab diir xam naa jamono booba dana du sori soixante-dix-neuf jiili sekk mi ci kër sëñ Saliou gi daja nañ got waaye bi may nettali keroog dana ma soixante-dix-neuf ñoo fa daje booba nag man amaguma juróomi at kon booba xam nga néew na lool at yi mm-hmm. néew na lool kon loolu yàgg na mm-hmm. got googu laa nekk ba 83 ñu dem jàpp ndal ba 92 90 sëriñ bi yeewinu gannaaw bi 93 ca tàmbali ba mm-hmm. ñu yokkaat sunu jaayante ngi delluwaat ca daara ja ngir nàmmaat sunu yitte ak sunu pas-pas bi ñuy xel koom di jóge njàppandal 93 ci ñi fa toxoo jëm xelkom ci laa bokk la ko jiitu nag demoon naa koom waaye booba sàmm mi lañ fa doon def sàmm mel ni mi ngay gis jëmm ji toog di wax yow xëy na ñu bari duñ xam taari xam ci lu bari waaye man sàmm naa gortal naa suqi naa doon naa safarub café doon naa safarub ndab lool ñu ne ca daara ji ñoom daañ ko xam lu ñuy def rek def naa ko suqi def naa ko sama loxo yi waaw yoon wa njëkk a dem nag ba nag yi njàppandal yeeg nag yi waa Ndookaak Lagan foofu àll bi dafa amul dara cim ñax te xel kom amum ñax ñu wut ay pël ñu jiitalul nag yuy dem ba ñuy tànn ñay dem war leen a sàmmi ca laa bokk ma dem ca ki ma doon waxal tey ji suba kilifa gi ma doon waxal ma ne ko man yitte rek kila laa mas di xëy kila mas di gont ak pas-pas te jëmm yàlla rek a tax sëñ bi xam nañ sàmm xam mm. suqi mm. ay sëfooru ndab ak sëfooru café xamaguñ ko waaw ah, sëfooru ndab sax daa cee def ay jaloore moom <laughs> yàlla ma séeréer yi nga xam ne ñoom lay topp lu bari nag summi <laughs> sëfooru ndab mooy noonu nga waxee léegi sëñ bi bi la yabalee ci daara ji da wax ne ne ñun ñooy bokk néeg maanaam sëfooru ndab moo di boo ñëmee ci kër daara sëñ Saliou bi keesu njëkk yi mm-hmm. fukki néeg la ak ñaar ñeenti néeg ga def nii ak ñaari kaas benn ne benn ni nga demaat ca wet gee mu doon loolu day nekk fii day nekk juróom-benn fee nekk juróom-benn boo ko boo fukk ak ñaar fukki néeg yooyu ak ñaar ñu ci bokk néeg fukki nit la doon ak ñaar jëm ñett ñooñu ñooy bokk ndab ñooy bokk tool bu ñuy xëy ñooy bokk ndab lu ñu sukk ñooy bokk kafe ak suukar nag day am koo ni ci daara ji ci ñooñi moo yore wàllu kafe geeg suukar si tàngal meeg yooyu moo ko yore am ko moo yor ndab li ku wax sëñ Cheikh Atta moom sëñ Saam moom sëñ Mor Soxna boobu mooy yore wàllu diggante soxna yi buñ toggee ba noppi moom mooy seddale moo yor magasin ba ak soufflé lay yore bu soufflé suufle gu njëkk bu une jote jotee wala une heure demi mooy dem leen raxas ndab yi suufle gu njëkk gi mooy dem leen raxas ndab yi buñ suflewaatee ñu dem raxas ndab yi indi buñ suflewaatee sufleeg ñaareel mooy ndab yi tas na kenn ku nekk fa ngay sukk dem fa waaw ah, kay man nag damaa bokkoon ñi nga xam ne sëfooru ndab la suñ suñ daara léeg-léeg dama daan yor ndab li féetuwoo ko nga xam ne yow yaay raxas ndab li fu ñu suflee ne andi leen ndab yi man daana fekk man danaa raxas sama ndab ba mu jekk wut fii suñ pont suñ suñ lal ma wutal ko lam moom ndab li wékku ko ci léeg-léeg damay dem layandiwaat rek yóbbu mm-hmm. nu tibbandu tombe bii nawet bii nga xam te ñoo ngi ci nawet ak wax set mm-hmm. am na ci boo xamante ni dañoo yóbbu ndab yi bi ndab yi tas tombe xiin wi sàq mi melax bi gaa yi tëbandoo ñu fakkastal ma mm-hmm. may daanu waaye waaw waaye yàlla dogal ndab li moom dara sikku ci <laughs> waaw ndab li man daal daanu naa waaye ndab li ma nga tege nee ah dara si ci moom ñëpp nag di tàcc <laughs> ñëpp nag di ma tàcc ne Modou Mbacke daal moom moo man ci safari ndab yi ah, <laughs> waaw <laughs> loolu mooy safarum ndab waaw sàmm it ah, noon noonu la demee woon booba dañ fa jóge dem dem fële ngir ngir ngir sàmmi ah, xel koom booba ñeenti baraag rek a nekk xel koom baraag yi ma lay wax ni mi ngi nekkoon ci daara ji nga xam fi la forage bi nekkoon yeneen ñaari ñeent ñaari baraag yi ci des mi ngi nekkoon fi tracteurs yi nekkoon doon bay booba tabax yi yëpp amagut xel koom <laughs> waaw tàmbali woon nañ di ko tabax waaye noppeegut hmm. waaw kay. jërëjëf kon mu mel ne buñ dellusiwaatee dañuy delluwaat la sañ Bay Jaxate waxoon ne sañ-sañ balaa am sànja am ak nattu ak tumuraanke attayit ba fatu kon sëñ Muudu mi yaakaar naa ne buñu delluwaatee ci ginnaaw tuuti mm. dana nga xam ne fépp fu ab dongab daara daan jaar ak lu nit du tumuranke daj na ko ci sëñ Saliou moom moo la doon def lool nag lan nga gis ci sëñ Saliou mooma sëñ Saliou day képp ko takkook moom te dëggal a wax de te dëggal te wér te am pas-pas bu wér bu wóor te yéene ju sell bàyyi woon dafa kilifa gi ma doon waxal ci suuf bi ñu waxtaan nee naa ko nii ma waxee nii jamono yi ma fay dem ni laa ko ko waxee ma ne ko yàlla nag yanki waloon na ma lépp lu may def damay wax fas yéene liggéeyal Serigne Touba te jëmmi yàlla rek a tax ndab lii ma doon raxas dama ko ca daan fas su ma daan sàmm dama ko ca fas su may bay dama ko cee fas suma ma ngaa jukki di jàng dama ko ca daan fas lépp lu may def rek fas yéene liggéeyal Serigne Touba te jëmmi yàlla rek a tax sëñ Saliou nag ku àndeek moom pas-pas ak yitte te loolu la ñuy àndeek gaay yàlla yi noon la ñuy àndeek yi nitu yàlla mooy dëggu ak pas-pas ak yitte ndax bari waa nañu nekkoon ca daara ja ñu ma koy waxe waxtu ne léeg-léeg boo leen gisee dana am nooy xalaate wala nooy jàppee te fekk na ci ron ku baax dafa am yitte jum laaj ak pas-pas ak sellal su loolu amut jariñu dana la ci jafe dana duy sa ci yàlla dana la jox xelum adduna it mu la doy sëkk niital la foo war a aw mhm. ba lépp dana leer naññ fi sam xel set wecc ci wàll gépp mhm. waaw ci tënk mhm. yaari tomb yi la dana def ci sa ruu xam-xam bu leer bu set wecc ci sa digganteeg sa borom waaye dana la ubbi ci wàllu xel moo xam ne da ko jariñoo ci sa adduna nga xam li sëriñ bi wax ne wala tujaalis xayraman bihi sa diinan wa xaqlan abadan tanal muraad nga xam ne yaar yëpp danga ko fa dolli koo gu wér yàlla defal ko nag si boppam joo xamante ni moom boole gim ko boole ci sëriñ bi tawféex jooju la waaye damay wax ne sëriñ Saliou maanaam mbiram bu ne woon safeet xam nga sëriñ moom képp ku ne fi moom rek dafa am fu la jëlee andi waaye ku ci ne rek boo boo feeñoon feneen nit mat li nga doon. boo santoon neneen nit mat li nga doon. sëñ sëriñ bi it sëñ suñ borom bi defal ko tawféexul ilaahi joo xamante ni dem na dayo ba xamante ni képp ku taqoog moom yaar yi ma la wax dana mat sëkk ci yow te li ma xamit ku am ab xolam foo mën di jëm sa mbir kanam rek du dellu gannaaw mukk ni mbirum nit yàlla yëpp kon Serigne Saliou meloon noo xamante ni nag ci yëg nit yëg kenn melut ne moom déedéet fi mu ne Serigne Saliou képp koo xamante ni suñu borom dogal na nga nekkoon ci keppaaram lii may wax képp ku nekkoon ci daara ji dana ko mën a seere koo jaxasool rek yaa cay bàyyi yow waaye ngir nga mën a tee jaxasoog moom dëgg dana jafe ndax sëriñ bi yëg gi lay jox kenn ku la koy joxati doo ko gis ah man de xawma ko man man de xawma ko te yaakaar naa lii ma wax ku fa nekkoon te xam ko te dund ak sëriñ bi da nga mën a seere nii ma ko seeree yëgam ci nitam kenn mësu koo gi sëriñ bi boo nekkee ci moom ak yitte ak pëstéef bi demee ba mu xat lu mbooloo mi bari bari bari fi ne boo nee tëll fële nii lay def loxoom bi ba boo koy gis rek moo ñam gi ngay njëkk a gis dana la sagal ci sa kanamu aw nit kenn mënu ko ci loolu keneen kurit moom it defu ko ca moom laa gëj a gisa loolu ci sa biiru nit boo dikkoon fi moom ànd ak aw nit dana la ca sagal sag boo xayti day dem dayo kenn defu ko ci nag ci moom laa gëj a gisa loolu yaa ngi dégg ni manee sagal ak nitam kenn mënut ma man sëriñ bi jóge naa Kër Mbay Fall ay yoon di ko siyaare si fii damay ginnaaw bi ma yeewee saa su ma dikkee léeg-léeg damay fekk sax sëñ bi day def yëfi séeréer daf may woo ma dikk bu ma ànd ak nit danañ ko dalal foo xamante ni lu lu lu li fi kanamu sëñ bi sax lay nekk foofaa koy gën foofu ndax sëñ bi moom yëfi séeréer du mel noona café doo nga lay doon waaw léeg-léeg mburu rax ca daggal na ma kafe mburu ba tey waaye dara du am ci mburu ma su ma ñëwee mu xelil ma kaas ma naan ma ne ko sañ na ma amaatub kaas mu ne ma waaw mu xelil ma ma xelil def sama bitel téye bu ma daggalee mburu ma def yëfi séeréer mu ne man na ma amaat ma ne ko man na ma amaatoo dagg mu ne dagg joxaat ma ma denc ma demee yóbbaale kër bi faal waa kër gi barkeeloo ko sëñ Muntaxa mii am na bis noo fa daje man ak moom ak yàlla ñun ñett yaa ngi dégg keroog man sëñ Mountakha dama ko daan dégg nii rek ak di ko gis sëriñ bi bi mu ko laajee na nga def mu ne ko minute bu ne yokku cant ak yeesalu jaayante keroog man wallaahi alxasim waaw keroog man loolu mu dugal sama nopp bi ba tey jii mi ngi ci sa biir mi ngi biir moom bi day mel ni luñ bind sama xol bi rek <laughs> ndax neex <laughs> waaw waaye sëriñ bi noonu la mel saa soo dikkee ànd ak nit ni mu leen di def kenn mënu koo misaal kenn yemu ci moom maanaam te dana la def noo xamante ni sax boo gàtteem xel yow dangay ngay defe ni dara nga fekk biir moom ci boppam waraaxi fi kulli xalqin xaq man da koy sàmm ci bindee fi yëpp ndax loolu ñëpp la ko doon defal waaye yow mi nekkoon ak moom nag ca yenn jamono ya tam xamoon sa yitte ak sa pas-pas ak saw doxin fam lay teg ak nam lay jàppee nam lay def loolu man gisatuma ko waaw waaye sëriñ Saliou daal moom ñaari faar yii adduna ak alaxira ku nekk ak moom tey sellal sa yéene ak sa pas-pas ak sa doxin danga nga ci màndi adduna moom dutoo dajeeg lu la ci jaaxal ndax lu ci ne dana la ci teg yoon waxen loo yegg da nga xam na nga cay doxe ba jàll ca loola wàllu diine ak pas-pas kenn mën la cee bañ a mën waaw waaye nag sa jaxasoo it nag nam doon def ak yow nga gisati ku lay def noona kuy kuy jëflanteeg yow noonu it ci ci sëriñ bi ni mu lay defee nawle ba nga yëg lu gone tuut tuut tuut fi ne da lay déglu boo ñëwoon fii da ngay day mel ni eh, ku toog ak moroomam nii rek li muy màgg màgg ak li muy kawe kawe ak li muy baax baax ak daraja ji yàlla jox ci fànn gépp noonu la lay def. jërëjëf ndax eh, ñu santaat bu baax a baax a baax ndax fi ne yaakaar naa roo yi mi ngi ñu ngi yëg Serigne Saliou. bu baax mm. eh, ndax sëñ Modou. daana am jataay direct ci bi ci daara ji mook sëñ saa ah laa ilaaha illallaah loolu loolu xam nga man ñaare bëgguma sax di ca waxtaan nag. Mm. yàlla mi dañ kumpay seere na ko sëñ bi gannaaw bi ma jógee ci daara ji doo ngi dikk bari na ma ak moom ay jataay yoo xam ne su ma ko doon nettali fii ñu nu ngóor see mën a fenn mm. billaahi wal kitaab bi du ci wax leen loola man la ak moom ak yàlla mm-hmm. soxlawuma ko sëriñ bi may ne ci daara ji juróom-benn koñ bi ci njàppandal fanaane ko fanaane naa ko fa bés ay yoon ba asamaan set bi may ne njàppandal fu mu masaa yegg si wàcc ci oto bi dana ne wool ma bàyyi Moodu bàyyi Moodu la ma daan wax sëñ Moodu ajaraata kiñ ma tudde tamit woy juróom ku ñu wax Njóogu Njaay booba sëñ Fallum sëñ Soy bu moo yore daara ja ñoom ñëpp fi sama kanam lañ fa dikke sëñ Fallum sëñ Soy bu bi ñuy jóge got ñëw njàppandal sëñ Abo Mbàkke yàlla na ko yàlla jéggal te yërëm ko mm. te yokk ko tawféex ak yërmande fa tëdd moom lañ fa fekk waaw mi nga ñaari tëli mm. xawma benn tëli mm. gannaaw ba sëñ Fallu mi ñëw na fa bàyyi jaw yor na daara ñoom yàlla na ko yàlla dooli yërmande ku ñu wax Njóogu Njaay sëñ am sa moom sëriñ Abdoulahat mii nekkoon na fa suñ jëwrin mm-hmm. <laughs> ah bu baax ba sëñ Abdoulahat di wàcc bu liggéey fa la ko fekk ca daara ja la ko fekk mu fekk ma fa man maa nga fa oto bi ko doon jël si ci sama kanam la ba ko mbay fay di ko fëggi ca néegam ba defoon nële bu ko dégloo dana xam li may wax ci sama kanam la nun gone yu nu toog nee di jooy waaw booba sama fukki at lam teg bariwut te jit ñetti fan lu ko jiitu laa gént si ñëpp laat wàccu liggéey ñetti fan na ma ko génte noonu la ame ne damaa gént ma neen suñ ñu naan Moodu mbakkew Mbàkkeew li ngay wax la mu doon mais yéen dama ko gént rek ki way jur soxna asumi soxna Aminata Touré su ma masaa gént day mujj ne ma mbaa jàmm la léegi nag xam naa ne càggante gee ma ëpp doole ba samay gént leeratut waaye lu ma mas gént moom caméra bii ñoo yem ci man ak caméra bi ak nit ñi toog booba ni ma génte Maulana Cheikh Abdoul Ahad wàccub liggéey nii ma la wax nii ci biir daara ji ñu di ko wax ma gis mbay fay dem fëggi sëriñ am sëtu ne ko taalal rajo bi déglu rajo bi ab oto jël si ko sëñ am sëtu génn ñëw ba ci oto bi mu dugg bi di xonq cor nun gone yi suñuy rongoñ ji tuuru oto bi départ nu dox ba Touba dama damaa dox ba Touba keroog neen ñenn ci donga yi njàpp ndal dégg nga ni ma leroo jumaa ji ba dugg daaree kamil ba ci baraas bi ñu ci sëriñ bi ba ci mukket bi ñu lal nii wallaahi alxasim lépp noonu laa ko génte te noon laa ko doxee boobu foofa la ma fekk waaw. waaw mhm. kon jataay yooyu moom sëriñ bi dama daan am moom jataay comme nii may toogeek yow ni ko toogeek sama njaboot gi saa su ma saa ñëw li ma doon wax njuugu njaay moom yi eh, sëñ di ko laaj sëñ Falloum sëñ son bu ne ko waaw sëñ bi damaa gis kii bàyyi Modou Lokoy mu ne ko kiñ ko tuddee tax mhm. waaye saa su ma saa ñëw dana ma laaj fan nga toll saa su wàccee ci daara ji bu dee njàpp na la got sëñ Saliou moo ma dalal baax hmm. waaw biñ ma bindalee dani nañ wool bàyyi mu indi ëllibaam ma dikk mu dalal ma door maa booleeg sëñ Saliou Touré bu Cees kon jaar na waaw waaw sëñ bi muy jógee euh, got di dem Cees fa la ma bàyyi déet du ma kàngam ab dongo dong laa <laughs> benn jegewuma kàngam sax fa kàngame ne sax siinuma ko waaw séenuma ko waaye man xam naa ne donga laa rek <laughs> waaw kay nga ko nii la tëdde waaw waaye sëriñ bi moom dama ko daan toog moom nu ne ak waxtu wu ne di waxtaan ak man ci lépp lu bari bokk ah, <coughs> ñuy santaat sëriñ bu baax di jaajëfal ñi nga xam ne ñoo ñuy topp waa sëriñ bi léegi damay gis nag rajo yi ak yi ñuy waxtaane sëriñ Saliou moo xam ne hmm. damaa xamul mi ñuy waxtaane mii ak mooma hmm. yow ci sa dégg-dégg nan la demee man de sëriñ Saliou mi ma xam doon dund ak moom li ma xam man dund ko ak moom ku ragal yàlla fii ne boo ne nit ku ragal yàlla nag nit ñi am na nuñ koy xalaate nit ku maandu nit ku rafetal ku jox léppam boroomam ci lu ma dund man ak moom te xam ko sëriñ bi bi muy man ci nafila daa nga gis mën naa fanaane naa la ba asamaan set bëcc ci julli léegi-léegi ma man ngoo ko gis mu ne ci ñeenti rakka yoo gi bala ceen noppi doo ko mën a misaal man mii di la wax ni fanaane naa ko bës ba tàyyi waaye gis nga kurus gi du deñ ci loxo bi nii toj toj toj léegi-léeg kay yow yaa naan kan dag nelaw mu fëgg la nga jógaat <laughs> waaw kay waaye sëriñ bi ma xam man ak lu waay defit dana fexe ba budut noona dala koy wax fi saasa waaye dana xam nam la koy waxe xam nga fi mu ne sëriñ bi bari na luñ ciy wax loo nit ay génn dong di ko wax ba loola wëy jàll waaye du doon loola waxtaane naa ko fii ca jamono yële ca gannaaw mm-hmm. waaye man toog naa kenn nit liw ma ci njàppandal booba fekk na man yàlla dogal na yeewi na ma ba ma ñibbi ma ñëwaat fa doon ko siyaare si am na ñaar ñu ànd kenn ki xam naa ko waaye kam àndal moom xawma ko booba defe naa ne damaa xamatut am na am na kuñ fa dajal ñoom ñooñee damaa xamatut sëñ Saliou sila yàlla na ko yàlla doolu yërmande ak njéggal ak yër tawfiq kenn ki daal di ne man kat sama wayjur sàngam sama wayjur sàngam da daan feccal sëñ Tuubaa sama wayjur sàngam da daan feccal sëñ diw sëñ sama wayjur sàngam da daan feccal sëñ diw xanaa man nangam jóg di tëpp tëpp ka ca des jóg sëñ bi keroog dafa tàng ba ba di ditoo kii ndax xam nga xaal day meneen mbir moo xamante ni kum nekkut ci yow jorul nga di ko jéem sëñ Moustapha Guèye Daara yàlla na ko yàlla doolu yërmaande kenn nettali man mag rek laa daan toogal moo ma nettali ne ma sëñ Yéri Jaxate daraan feccal sëriñ bi waaye boo nee turu fecc nit ñi dañuy defee ni fecc mi xew la déedéet fecc la moo xam ne da dëb dëb nii sa tànk rek toog yaa ngi dégg moom danaan fecc tëpp tëpp tëpp tëpp tëpp wër ku baax ki foon ko nii ci jë door a dem toog bis mu dikk sëñ Moustapha Gueye moo ma nettali de bi mu dikkee di ko def am na keneen ku jóg bëgg koo toppandoo sëriñ bi na ko sa tànk boobu bi bu jógee ci sawara nga ko teg kooku ne noot dem toog te fekk moom sëñ yéeri moom am na bis boo xam ne bi mu dikkee te feccut ni mu doon def noonu sëñ bi dana ko ah, da ngaa def sax mu daal di jóg def ko xëy na booba bi mu dikkee te def ko xaal bi daal nikkut dafa ñëwul rek xëy na bi sëñ bi waxee rek xaal bi daal nay dikk mu jóg léegi nag dangay ngay gis taalibe boo xam ne moo mën a yem demagun fenn doxagun dara bëgg di incarner waxi mag ñaak jëfi mag ñaak doxalinu mag ña te du noonu de nit day woote lu nekk ci moom day dox ci xaal boo xamante ni wóor na ko ni mi ngi koy dund waaye doo jël xaalub jàmbur ci nit li bëgg ko adapté woo boo ko defee gaañ sa bopp nit du def loolu waaw. loo doon wax man kat damay réer ci wax ji. waaw maa eh, waaw mi waaw mii ñuy nettali nii. yaa ngi dégg kon sëriñ bi dangay gis ni gis nga kii lim def te bu génnee du wax loola leneen lay wax toog naa fii ci biir kër gii. nga gis koo xamante nii la muy wax ci ci ci ci sëriñ bi da da toog ni mu yorub téléphone am di woo nit sëñ baa ngi nii noo toog te araam sëñ ba jegewut foofu yëpp moom de mi ngi lay laajatu nuyu nee na namm na la lool nee na sax fa ni dana lu yónnee ñaan xam na fa ñaan yay nekk boo booli ba def mouchoir yaa ngi yëpp nga ne bu ko waxee loolu kooku day daal di kontaan big sant yaa ngi dégg boo gisee xissa yu bari ci sëriñ si mata tey li tàmbulee ca ku baax ka sëñ Touba ba ci sëñ Saliou nii ni nga gisee xissa ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu naan xadisu daxiif ak saxiix yooyu yëpp sëñ bi dafa am ci jamono bu yàggut bii ci sëriñ Saliou lu ñu ci nett li yu bari yu nekkut te nit ñu jàpp ko te dara du ca dëgg yii ma lay wax ni yëpp sama noppam may ak sama bët kenn nett liwu ma ko yaa ngi dégg de su ko defee kooku bu toogee tuuti da bu woowee kooko woowaat na keneen woowaat na keneen woowaat na keneen dajale yëfam bu demee ndakaaru sëñ bi sëñ bi dee la jox lii sëñ bi dee la su ko defee encaissé ñëw toog loolu du sëñ Saliou du ko yëg sax nag fii ci dëkk bi am na ci koo xamante li may waxtaane waxtu gis nga kilifa yi waxtaan am na solo ci ak sang njaboot te di leen déglu te may leen ci sa bopp sañ-sañ bu ñu la mën a waxee yenn yi baax na ci kilifa de ndax taalibe yii seen xel yi sëggut duñ ay dof ay nit lañ loo xaw a def xaw nañ koo xam ku la ci gis nag dana la warmaal su jóot ah sëñ bi tabarkàlla sëñ bi di boo waxoon ba noppit boo leen laajee ñu ne wax ji kay tabarkàlla te ñu ci bari waxul dëgg dañuy fen bu ñuy génn di la weddi maa la wax lii ku ci wax teeyal ci li ngay wax te xam li ngay wax waaw am na ci kooku man na maa wax aw turam du déedéet li ma jubloo wax li may wax damay won ne la xam naa li may wax du ma tudd turu kenn mm-hmm. ci lu lu ma xam ci aw yiw waaye bu du loola damay wax fee mm-hmm. bàyyi li ci des am na ci kooku sëriñ bi am na ko mu teg fii ci dëkk bi bu ko soppi fi saasa mm-hmm. xëy diw agsi ci moom yaa ngi dégg moo ne diw mii ma lay wax moo ma ko nettali de <laughs> wallaahi laa si moo ma ko nettali <laughs> wala ba ba mu koy nettali nit it maa ngi toog <laughs> kenn nettali ma ko moom ci moom laa jëlee yaa ngi dégg de sëñ bi bëgg a teggi kooka de mu ñëw ne ko dëkk bépp nee nañ jox nga ko borom jox nga dëkk bi borom arraam waxi boppam la kenn waxu ko moo ko wax moom sëñ bi moom gannaaw dégluwutub tele dégluwutub rajo seetaanutub télé duggut fenn ah ñi ñi indi rek ñi ne fi moom ñi ci gën a bari ñoom lay gën a jàpp ñoom lay gën a déglu sëñ bi génn ca loola lii ma la wax kenn nit du ki ma ko ki ko def moo ko wax ma dégg mu leer nañ te man du ma waxantu man lu may wax dama koy xam ragalu ma kenn kuy dox ci kaw suuf nag su dëgg jotee dama koy wax waxuma pour kii waxuma pour kële damay wax pour nii rek bu dëgg dalee ci sama kaw na dal ci sama kaw bu dalee ci sama njaboot mu dal ci sama njaboot bu dalee ci keneen ma dal ci keneen su may waxi dëgg laay wax mbaa ma noppi waaw dara nekk lu ma ci li may wax ngi lu may ngir labirante ak bëgg lu baax képp waaye sëriñ Saliou nit la koo xam ne li ma la ci wax léegi baatinam nit ku yàlla defal baatin la xam nga nit ñi baatin dañ koy xóotal ba mu ëpp mm-hmm. waaye sëriñ Saliou tawfeexul ilaahi la am tawfiqul ilahi mooy koo xam ne boo jaxasoog moom sa mbir di defaru mooy koo xam ne booy jaxasoog moom sa mbir di jàppandi sëñ Saliou noonu la mel maanaam kum tafli lor rek am nga tawfiq te lor wa dara du ko dindi nag kënu la gu tàkk moom mi ko taal sax du ko delloosi déedéet léeg-léeg dana am kër yooyu da am yu cay xew dama leen di wax ne ka fa ka sëñ Saliou tafli lor wa day kooka ku mu gërëm kooka day jàll moom am na loolu xolo koy maye de gis nga doom yii ma jur dama leen koy wax kii a mag ak kaa mag yooyu sëñ bi am na solo waaye am na lu ko ëpp solo am na ci lool xol ki am tawféex ji amalu xolam mooy tax nga am li nga bëgg du leneen ndax sayir am na ci yooyu baytin moo koy tungoom ba mu mën koo feeñal ngelaw ku ma ku la ne dana gis ngelaw ngelaw kenn mënu koo gis la ngelaw ëmb ngay gis ngelaw laa nga nee di ñëw lam ëmb nga gis waaye gisoo ngelaw li ngelaw da koy yëg mbaa nga gis lam ëmb waaw ah, kay. jërëjëf jërëjëf jërëjëf euh, <laughs> ñu ngi santaat ko bu baax a baax xam naa ne li ñu dese waxtu bariwul hmm. waaye li ñu dese ci waxtu nag day jëm ci bis bu tedd bi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul woote hmm. te mu ñuy ñëw santale ko boroomam hmm. te yaakaar naa ne tawfeexul ilaahi dëgg nag mooy sëriñ bi woote sant yàlla nga wuy si ko loolu day dara féetu ko kaw gis nga Sëriñ Tuubaa dafa bari yuñ ci wax yoo xam ne léeg-léeg sax dangay ngay waxtaanee loo dangay ne da ngay nit ñi dañuy gëlëm mbaa ñu réer waaye ko defee ni dëkk bii mu sanc ci waxtu yu ko sanc dëkk bu mel nii mu mel ci zaahir ñëpp gis ko lam doon wax ci matalabul fawsi da ngaa defee ni sëriñ bi doo nga doon ñaan <laughs> bi mu fi ne moom doo nga ñaanu de waaw mag ñi fi nekkoon ñëpp di nit ñu baax ñu ngi doon ñaan ku ci ne lam bëgg ma nga ko doon ñaan ca fam ko bëgge ak nam ko bëgge <laughs> Ah, am déet nii ko sëñ bi nii ko sunu borom wuyoo wuyoowu ko kenn waxuma na ngir kenn waa mbaa di parparloo wallaahi alxasim tey jii bu ma doonoon leneen lii ma wax laay wax ñëpp doon ñaan waaye ni ko sëriñ bi ni ko suñ borom wuyoo wuyoowu ko kenn ci zaahir ak ci baatin xam nga fu yàqu-yàqu bi nekk ci nun ñii di woote woo ay bi wax dëgg yàlla li ñuy wax ci sëñ Tuubaa ak noonu lañuy ñuy def bokkut ah. maa la wax loolu kookooy dëgg képp ku ñuy tudd kilifa yu bari ñu ñuy tudd di tudd sëñ Tuubaa nanu war a doxe ci sëriñ bi asaka ji defuñu ko nun taalibe yi tamit ñun ñu ci ëpp doxewuñ nin war a doxe loolu kat wax ji jëpp bu ñuy yab sëriñ bi di ko jaar ci nun lañ ko jaarale moo xam mbokkum deret la wala mbokkum taalibe la waaye lan waroon a def ni sëriñ bi doon def képp ku dikk ba fi moom mar yàlla booy dellu màndi amatul de ku dox ba dikk ci nun ñi àdduna ngay gën a mar bakkan ngay gën a mar bànneex ngay gën a mar waaye kenn xëñatul yàlla ba ñëw fekk ko fi la nga fay fekk kay ku lay wax mbiri àdduna képp ak kuy wax ci mbirum jàmbur ak kuy wax lu yoonum nekkut tañ ni kilifa ak diine la nga xam ne defaru sax defagu ko waxuma la naan day defare te fuñ toll nga ne sëñ Tuuba amul morom ak sëñ bi rek a fi nekk ak ak taalibe doo nga am solo loolu mat naa leeral kat ba leer nañ ci boppi nit ñi waaye ay baati sonogaa képp nga fi gis ak wax waaye la war a am ka dëkk bii képp ku fi jógee ne waaj naa ngir damay màggal si kilifa gooy dem di dal moom yu yóbbaale say berndeek sa lépp boo fa jógee kat war ngaa fe màndi ci yàlla. lu ci dooleeku lii lépp yàlla rek la de. rek la sëriñ bi yàllaa ko wuyu. ni mel lépp yàllaa ko ko def. ci tàmbali bi ba fi mu ca duutul jeex kon yàlla rek kon fu waay ñëw ci màggal gi xam ne lii li ko waral nattu la bu yàlla teg ci jaamam jaam ba nangu ko yàlla tànn ko defal ko tawfiq doo xam ne musu koo defal loolu mooy li du xaabaabal du xir daanu it yaa ngi dégg waaye nag ndono yi war nañ koo xoolaat nag bu wér a wér tey sëriñ bi ku taxaw ab taxawaayam rek lii ma wax rek moo war a am moo xam mbokk la moo xam mbokkum taalibe la su ma nee mbokk mbokkum deret tax su ma dee mbokkum taalibe li dalee ci njabootu seex yi fi nekkoon yépp kenn ku ci ne kër goo fi dugg war nañ laa fàttali yàlla fàttali la ci li sëriñ bi nekkoon mu yàllaa ko yonentam ci bu wér ba booy dellu yow da nga gën àdduna dana gën a woyof ci yow da gën a xeex sa bakkan da gën a xeex sa bànneex da gën a bàyyi xel nit ñi doo bëgg seenu tagg doo ragal seenu ŋàññ yàlla mi leen bind bind la képp ngay bàyyi xel te da nga waajal it sa kërug ëllëg xam ni fii gental nañ ko ba noppi kenn ci nun ñu des fi te kenn ku nekk yaa ngi dox jëm ci gental adduna nga yëg ko ak nga ñàkk ko yëg waaw léegi kat nun ñii koo ci dem ci këram moo gën a bëgg taalibe yi adduna fuuf ñépp ak mën a yem waaw bu ma ci xam naa sax maa yées ñëpp waaye war na noo xoolaat sunu doxin daal ma tàmbalee ko ci sama bopp bu wér xoolaat sunu toogee nit bu wér ba taalibe yii nga xamante ni sunuy nawle lañ ay nawle lañ kenn ci nu defut lu tax kenn di la topp nag koo fi toogal it sëñ Tuubaa rek la lay wax sëñ Tuubaa nag daa am ci lu mu nekkoon mooy yàlla akub yonentam teg nit ñi ci siraatal mustaqima teg nit ñi ci njub teg nit ñi ci leer rékki li rékki leen ci bépp pas-pas bi yàlla gërëmu takkaayi leen pas-pas yi yàlla gërëm am na ci loolu ku ko tële am na ci lool tële woo mooy lum gàtt-gàtt am nga ñaari baati dénkaane yoo man a wax ci képp ku teew fi yow nga mën ko ko dénk mën ko ko soññe kenn ku ne ci noonu war naa góorgóorlu ba fu mu toog sa bokkum taalibe bi mu la fa fekk wala sa taalibe bi bu la fa fekk bu la dégg ngay wax ci sam nawle lu ñaaw bu la dégg ngay wax ci sam nawle lu jekkadi dalay xeeb de kenn dufun ba june jàpp kilifa goo toogal muy wax ci keneen ab safaan dong ko waxut dong waaye xeeb nga ndax da nga xam ne kii matut moo nawleem boobee bu newoon ci safaan it yoonum nekkut mi ngi ak ayib yu ko gën a ma mag fop toog ca te bëggul kenn ku ko wax kat waaw loolu mooy li wér léegi nag kilifa yu ci bari ñu ni tudd ay kilifa bokk boo toogee ñoom ci mbirum nit dong la ñu ne daray adduna jurut loolu ki war defar nit ñi ba nit ñi duñ jëw duñ fen duñ rambaaj duñ yéene ab safaan duñ kañaan duñ njistal duñ wax lu dul dëgg kookee war naa jiitu ca loola loolu sëñ bay jaxate am na nu mu ko waxee kat adduna yàqu kat te kilifa yee ko yàq mm-hmm. loolu lu dëggu la lu wér la te foofu tool fi kon bis bii nga xamante ni ñu ngi ci jëm muy bisub sant nañ bàyyi xel li sos bis bi ak josaanal bis bi sant balaa am ah nattu daa am de ak tànn am de mm-hmm. xéewalee toftalu ca mm-hmm. cant door a dikk kon ku fi teew sa kilifa war na laa jàngal ne natt bu la yàlla teg na ko muñ tànn cay toftal tawfeex a cay toftal te cant gi kat foo takk yaatu gi weesu na ko waaye nun ñi ci ëpp de li ñuy gën a séentu borom nag wu mag bi borom ambalon bu diis bi borom gétt gi waaw tey jii day saa maas gi nga xam ne seen bu booyof na léeg-léeg bala ñu àgg ci kilifa ga daañu sonn te du noonu de da nga gis ku yuru dara te moo ëpp yéene pas-pas ki yor di la indil daa mën a gudd rek su yoroon la koy yor wallaahi def la ëpp li koy def kon ñëpp xoolal ci ñoom yàlla ak yonent bi sëriñ bi te yàlla rek a tax yàlla nañ ko fekk te tal ko te rafetee nu fekkin na gën a si déwén nit fekk nu fi lii may wax nag ndongo su doye di moo toog di wax waaye nag am yéene ak bëgg lu baax yàlla na yàlla sàmm te aarunu te taxawunu te dimbalinu waaye képp dëkk bi war naa am lu fi jële boobu delloo ne ah man de war na maa xoolaat saa bopp man kan ndekete waaw waaye dikk gën a xër ci àdduna gën a ñoddiwaat bakkan teg gën a ñoddiwaat bànneex teg boo delloo dara jëru ko waaw Euh, <clears throat> jërëjëf jërëjëf euh, mbokki téléspectateurs yi nga xam ne yéen ñuy topp ci seen télévision bi di TV jërëjëf mbokki auditeurs yi nga xam ne ñoo ñuy topp ci rajo bi di Assalaamy FM 99.0 mbokk yi ngi yi nga xam ne ñoo ñu doon topp ci 18 euh, safar 18 kangam te ji yaakaar naa ne dégg nañ kàngam dëgg. kàngam boo xam ne bu jeexoon tàkk ci boromam subhaanahu wa taala la danaan wax ne maa ngi tuubal sama borom di leen ko tuubaale di ko santaane itam kon yaakaar naa ne loolu nag moo ko may mu am tawfiixul ilaahiya tawfiixul ilaahiya mooy dëppoog sa borom ci lépp lu mën a doon eh, ñu ngi jaajëfal bu baax a baax sëriñ Mouhamadul Mbacke Maawul Hayaat eh, boo dikkee ci daara ji <clears throat> xool kër gi. ak daara ju mën a am da nga xam ne kii kat la muy santaane ca loola la nekk boo ko fekkee xel koom da ko xàmmee ak dong yi ñemewut a wàcc mukk lu dut ne dong yi ca benn xaaxam du ko jam ba ne nañ ko tànn waaye waxtu ne mooy ànd ak dong yi ca waar wa kon nag moom ma nga ca yoon wa ngi ñaan sun borom yàlla na ko yàlla àggale te musul ko ci pakk yëpp seen bokk taalibe Fallou Galass Syll moo àndoon ak yéen fii ci Taybatul Karim spécial Serigne Saliou Mbacké wasalaamualeykum wa rahmatullahi اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه صلاة الذي في كل بزار وفي سفر